ñoo ngi dénk sunu bopp daga yàlla di leen ko dénk ñu dellu siwaat ak ci émission bi ñu tuddee information religieuse nga xam dañ ko jàppoon ne woon nañ benn yoon lañ koy def ci ci weer bi euh, bii nag defe naa suma juumul mooy suñu war a nekk sunu ñeenteelu euh, émission euh, dëgg la benn we benn lañ ko def ci weer bi xaw nañ ci tuuti nag waaye sant yàlla rek ñu comme dellu si na nekk jàmm rek ñu tàmbale waat émission bi xam nga ni information religieuse ñoo ngi waxoon ni lépp li nga xam ne dañoo jàpp ni ci diine la bokk fekk ni moom bokkul la ci diine wala bokk ñu jële leneen ci yeneen diine dugal ko ci diine islaam jàpp ni tamit ci la bokk ñu war a joxe waat yeneen information ne est-ce que diine yi nga xam ne moom lañ tudd moom lañ wax moom lañ xam ci kaw ci àdduna bi est-ce que yooyu diine suñu borom nangu nu ko accepté nu ko wala bokk ban diine la suñu borom accepté

ci yu mbir yu baree baree bare yoo xam ne euh, bokkul euh, li nga xam ne suñu borom moom la gërëm kon lii mooy bitu euh, émission bi jotoon nañ nag joxoon quelque benn définition ci wàllu ci wàllu diine waxoon nañ ni ci yenn borom xam-xam yi wax waaye dina baax ñu fàttali lan mooy diine diine moom buñ ko waxee rek foog mu jóge ci yàlla diine ci suñ borom la jóge fondement bi na li ko fonde li base bi loolu ci wax wahyu lay ñëw maanaam ci révélation wàcc ci ay yonent yi nga xam ne suñu borom ñoom la yónni yonent yooyu nag ñoom dañuy corriger comportement doomu aadama yi jële leen ci lëndëm andi leen ci leer transmettre diine yàlla gi informer nit yi loolu nag ki koy jël ki koy nangu accepter ko mooy ki nga xam ne moom moo am xel boroom xel donc diine ci élément yii la jóge jóge suñu borom nekk wax yu wàcc ay yonent yonent yooyu euh, diine yàlla gi informé jàngale li nga xam ne moom suñu boroom euh, yabal euh, li suñu borom bëgg àdduna bi dox àdduna bi tëree lii nag lañ waxoon ci définir li euh, mooy euh, euh, diine bu ñu jógee na ci définition bi xamné ne moy diné nous ñu ñu xam caractéristique la am am religion bi religion caractéristique dafa ay ay ay caractéristique élément de élément caractéristique li firnde ni di diine la kon diine li koy firnde fop mo am ay trait ay ay mbir yo xam boko boo rek xam li mom ci diine la bok donc daf ñuy permettre élément yi daf ñuy permettre ñu distinguer ñu reconnaître tamit mbir mii wala lii ci yàlla la jóge ci diine yàlla gi la bokk ci diine yàlla gi la jóge donc élément yooyu boo ko dajalee mu jox la benn information bu claire bu leer ci sa bopp bi ci bopp doomu aadama bopp xam ne lii moom mënoo ko accepter lu dul nga xam ne lii ci suñu borom la jóge nekk wax yu jaar ci yonent yi nga mun ko nangu ne diine la waaye mbokk yi premier élément wara njëkk ci caractéristique yooyu ñu wax ci wàllu diine ci religion ci religion maanaam caractéristique de base yooyu de de la religion bi ci njëkk mooy bi ñu njëkk jël tey tef na moom la xam ne tey mooy nangu ne diine mu ngi jóge si suñu borom maanaam loi la maanaam luwa d'ordre divin divin waaw la religion li ñuy wax si tubaab est d'ordre divin donc loolu loolu foog ñu nangu ba pare ñu mën a jël yeneen yeneen yeneen yeneen tomb kon tey tomb bu ñuy jàngale tey mooy xam ne ni wala boog tomb bu ñu bëgg a xamle mooy diine ci yalla la jóge kon mbokki bala ñoo jall fokk doomu aadama nangu ni sun borom d'abord fokk mu accepter existence yalla fokk mu accepter sun borom ko am la fokk mu accepter yalla am d'abord balaa jàll ci lenn su loolu jàlle ba noppi kon diine bu waree am rek dañuy nangu ni si yàlla lay jóge kon si cadre boobu ci contexte boobu mission yonent yi mooy ñu transmettre ñu jottali diine yàlla gi ñan lañ koy jottali ay nit maanaam nit ak jinne ñoo ñi nga xam ne ñoom la sunu borom sant pour jaamu ko su ko defee ñu expliquer doomu aadama yi euh, bitu diine boobu maanaam diine bi lan la xam ngeen doomu adama balaa yonent yi ñëw dañoo nekk amoon yeneen comportement wala boog sax même bi yonent yi ñëwee sax doomu aadama mu ngi doon dund ci ay ay mbir amoon ay comportement amoon amoon ay xalaat xalaat yoo xam ne yu doy waar yu xaw a jege sax ay animaux ngam ñi lenn ku jekku sa morom nga comporté wu comme un animal comportement yoy ngami lo xamné ne nit ki bu koy def rek nga xamné ne mom moom dafa ànd ak nekk nitewul bok nitewul loolu nak mission yonent yi ñu corriger lool yépp nga nekkoon ci lëndëm amone ay comportement yu sauvage excusez-moi yu sauvage mu corriger ci lool andi la ci leer lool na comportement yoy. parce que balaa nga jëm si suñu borom balaa suñu borom nangul la foog nga sellal foog nga am benn comportement bu sell foog nga nekk ci ixlaas loolu nag mu jéggal la say say comportement yu weesu su ko defee nag yonent yi nag seen rôle mooy ñu corriger loolu correction boobu nag moom mooy sunna yonent bi mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunna bi nga xam ne moom la suñu borom accepté mooy sunna bi nga xam ne moom la jaarloo yonent yëpp mu am benn loi kon sunna fi su boobaa mooy loi ak ay comportement ak sagesse yii mooy rôlu su boobaa euh, yonent yi kon pour nga nangu ni suñu boroom ku am la ku existe la da ngay constater ni nga xool univers bi nu mu bindoo donc création de l'univers ordre bi nga xamné mom la univers di fonctionner buñu xalaté touti ci nature monde bi mun nañ constater ne ordre bi amna na lu koy doxal amna lu koy lu koy lu koy fonctionner lo buñu jëlé masalan tey asamaan nu ay étoiles weer bi nekk ci jant bi nekk ci nga xool suuf nu mu tàllee ko nga xool montagne yi nekk ci kaw bi nga yeewu gis naaj bi féetalo penku mu ngoonee mu dem sow léeg-léeg mu tàng jër léeg mu sedd léeg-léeg ñëw nga xool mu am géej àddina bi am géej am dex mu jékki-jékki di taw ndox di wàcc doo xam fu mu jógee mu wàccee mu disparaître ci suuf si donc loolu yëpp mu nekk loi de la science nature bi monde bi di fonctionner noonu nga gis cycle de l'eau transformation bi donc loolu yëpp comme monde bi noonu lay tourner war nga xam ne lii am na lu koy doxal am na luy tax muy tourner am na lu tax muy fonctionner ci ordre bi nii mu nekk de mu nekk ordre bu jub mu nekk loo xam ne amul lenn lenn lu koy lu koy dévier lenn lu koy contrôler am na normalement keneen kenn ku koy contrôler mbokk jur ñi lii ñuy wax nii nag dafa am nag ay doomu aadama ñuy jàpp ni univers bi dañ ko fi fekk rek donc amul kenn koo créer fi lañ ko fekk bu ben la ñaarel bi am na ñoo xam ne dañoo jël ay mbir jël ko comme yàlla considéré ko moom mooy seen yàlla yatt ay bant par exemple defar ay statut ne lii mooy seen yàlla am na ñoo xam ne dañuy jël ay mbindeef jël ko comme yàlla jàpp ni mooy seen yàlla wala jël seen mbindeef boobu teg ko placeu yàlla kon yii nag bu ko nit jàppee réere na suñu borom nanguwul que àdduna bi nature bi am na ku koy fonctionner loo mbokk ngir tontu ci loolu dañuy ñëw ci exemple bu bu terre à tey bu ñu jëloon masalan tey portable bi nga xam ni moom lañ jël di fonctionner moom nga moom lañ yor boo xoolee portable rek ñetti élément ñoo koy composé partie bi ci kaw muy vert bi ak partie mét plastique bi ak partie métal bi ñetti éléments yi ñooy composé benn portable mu ngeen ni scientifique yi ñu ngi wax ni ver ver ci boppam mu ngi jóge cosaanam mooy suuf plastique nag cosaanam mooy pétrole li nga xam ne mooy partie métal bi scientifique yi ñu wax ni loolu ñu ngi ko jëlee ci suuf ñu ngi ko extraire ci suuf kon ñetti éléments yi boo doon dox par exemple ci désert bi te ci biir désert yaa ngi dox ci kaw suuf ci suuf suuf ci kaw suuf suuf nga nekk mën na am pétrole boobu ñu wax mu génnee ci suuf ci biir suuf soosu di nga am aussi ay métal ay métaux moom ko mu ko ay fer ak yu mel noonu léegi nag boo doon dox jékki-jékki rek gis benn portable suuf nekk ci sa suuf tànk fii sa tànk fii nga nekk lan ngay njëkk xalaat doo jàpp lii nga téye nii muy benn objet portable benn objet la est-ce que objet bi moom ci boppam moo ñëw créer boppam wala wàcc nii ci kaw nature bi comme ça déedéet loolu boo xoolee nga am ni xel nangu ko jékki-jékki rek wàcc ni si suuf te ñetti éléments yooyu ko composé moo nekk ci portable bi kon éléments yooyu nga xam ni moom ci portable yi li ngay njëkk xam xool nga xam ni lii am na nit bu ko defar de manière très logique nag am na nit bu ko defar jël ay matériel am jël plastique bi matière plastique bi li nga xam ne moom moo jóge ci euh, ci suuf manam matière plastique bi ak li nga xamne mo moo ci pétrole yu mel non yeb métal bi fer beeg yooyu yëpp nga bolé len nit ki jël ko bolé ko defar ko ba nga xam muy fonctionner nga xam kon nit ko defar ko xam ku am xel ku yewu xam mo defar mbir moomu naka non nak non nga wara mëna xalaté a que univers bi. am na keneen ku koy doxal am na ku ko jël am na ku ko yor di ko organiser ci manière boo xam ne bu extraordinaire bu remarquable ordre boobu nag liñ ci mën a expliquer liñ ko mën a nangu mooy kon am na benn être suprême am na ku ñu féetoo kaw koo xam ni mooy doxal ni moom yow sa jëmm bopp sax yow mi doomu aadama yow mi di ko créer am na foo jógee fi nga jóge ci aadama te aadama mu ngi jóge ci ban mu ngi jóge ci suuf kon nga xam ni kooku être boobu suprême boobu ne moo la defar defar univers mooy suñu borom mooy yàlla suñu borom mu ngi wax ni qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad waaw kon kooku mooy suñu borom moom moo bind asamaan ak suuf kon keneen koo jël considéré comme yàlla ah su boobaa li ngay njëkk a laaj mooy ndax da am ay yonent ndax ñooñu nga yónni da ngay wàcc téere ci ñoom ak ndax yàlla boobu ngay wax ni ko nga jël yàllaal ko est-ce que moom moo créé univers bi ak lan la mën a def pour que action yi euh, nature bi mun a fonctionner ni nga xam ne moom la ñuy gis ni guddi di ñëw bëccëg di ñëw loolu mooy question bu ñu war a posé ki nga xam ne mooy considérer nit wala moo jël beneen mbir ne mooy yàlla kon boo accepté ni suñu borom existé na univers bi am na ku ko créé que diine su suñu borom lay jóge que suñu borom moo yebal ay yonent yonent yooyu seen rol mooy ñu transmettre diine yàlla gi yow li la war doomu aadama mooy nga jaamu ko nga jaamu suñu borom wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu diin kon nga jaamu ko parce que suñu borom mi moo moo moo moo moo andi diine bi kon sa rôle première sa rôle premier mooy yow mooy nga jaamu yàlla boo ko fi bàyyee à coup sûr leneen ngay jaamu lu bokkul ak sun lu bokkul ak yàlla moo tax diine moom fenn rek la mën a bàyyi ko suñu borom boo jàngee suñu borom di wax iza jaa wa wal fath wa ra'ayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja gis nga fii diinillahi kon ci diine yàlla gi diine su sunu borom kese kese kese kese la mën a jóge amul feneen mbokk jullit ñi li war li war doomu aadama mooy mu jaamu suñu borom sellal ko top ay ndigalam bàyyi ay teram top yonent yi rawatina suñu yonent bi nga xam ne moom moo mujj mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp ko mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaarloo fu mu la jaarloo nga mën a mucc am ngërëm suñu borom fii àdduna ak alaxira mbokk jullit ñi dañu teg suñu baaraam foofu ba ci geneen jotaay incha allah euh, émission bi nga xam ne moom la ñuy tuddee information religieuse ñu nekk ci ñaan suñu borom mu dafa ñu taw fiix jàppale ñu baax ba ñu mën a jotte li ñu war a mën jotte nu gën a leere asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.